bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bi ñu sant yàlla julliti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala dafa ñu tawfiq dafa ñu saadatu daarayn te bépp jaamu yàlla boo xam ne def nañ ko ci bis bii borom bi tabaraka wa taala nangu ko noo ngi ñaanal sunu kilifa cheikh Mouhamadul Muntaqa borom bi tabaraka wa taala yàggal ko fi te wéral ko ak képp koo xam ne yaa ngi liggéeyal islaam mbokk jullit yi gannaaw bu loolu jàllee ñoo ngi leen di dénk di dénk suñu bopp bu ragal borom bi tabaraka wa taala Sëriñ Tuubaa day wax ne ku bëgg mucc na ragal boroomam waaye ki bëgg a texe di nag na ñeme yàlla ki nga xam ne ragalul boroomam kooku mooy texe di ba faaw waaye ki ragal boroomam kooku mooy ki nga xam ne mooy texe ñoo ngi sant ñépp di sant yàlla bu baax baax ci bis bi nga xam ne moom ci leen génn démb muy bisub cant di bis boo xam ne bisub jaamu yàlla la di ñaan yàlla bépp jaamu yàlla bu ñu ci def suñu boroom nangu ko te ful ko te may ñu fekkee ko ay at yu bari euh, mbokki jullit yi ab sëriñ koo xam ne mbooloo dalaa topp da ngaa war a doon koo xam ne da ngay orienté ñi la topp di leen dénk di leen wax loo xam ne dana leen jariñ ci àddina jariñ leen ci alaxira moo tax xaadimu rasul radiallahu anhu am na ndénkaan bu am solo bu mu defoon boo xam ne mu ngi koy jëmale ci soxna su baax soxna su ragal yàlla waaye nag ndénkaan la boo xam ne ñépp ko bokk muy góor muy jigéen muy ndénkaan boo xam ne ku ko déglu jëfe ko borom borom bi subhaanahu wa taala dana la defal mucc ci àddina ak alaaxira li mu ko njëkk a wax mooy maa ngi lay dénk nga takkook muñ muñ ci jaamu yàlla ndax bakkan ut jaamu yàlla dafa metti ci moom nga muñ da ko def mooy yàlla dafa neex ci bàkkan nga muñ ko bàyyi ko mu ne ko maa ngi lay dënk nga ragal sa boroom ragal yàlla mooy topp ndigal yi bàyyi tere yi waaye mu tegal ko ci lu am solo mu fi sirri wal jaxar ragalal sa borom ci lu feeñ ak ci lu nëbb ragal yàlla ci lu feeñ moo gën a yomb ragal yàlla ci lu nëbbu ndax nga wéet ci sam néeg yow képp xam ne loola neex mën ngaa def waaye xam nga ne am na ku la tiim koo xam ne moo lay gis mboolem li ngay def yaa mu ngi koy gis nga ragal ko ba bàyyi li nga bokk na def ci mooy yàlla yonent bi aleyhi salaatu wasalaam day wax ci benn xadiis xadiisu Sawbaan dana am na nit ñoo xam ne bu yowmal xiyaam dina indi ay jëf yu rafet waaye yowmal xiyaam yàlla da koy def ay pënd ndax dañ daan wéet di xotti war ma yàlla di mooy yàlla moo tax mu ne ko ragalal sa boroom ci lu feeñ ak ci lu nëbb boo ko defee de yàlla jéggal la boo ko defee yàlla jéggal la yàlla moo wax ne bu gën ragalee yàlla yàlla jéggal leen seen bàkkaar te defal leen leeru xol boo xam ne ci ngeen di xàmmee dëgg ak caaxaan mu tegal ko ci saxal ci tuub ànd ak farlu ci jaamu yàlla tuubal say bàkkaar bàkkaar bi ngay def bàyyi ko te nga rëccu ko fas yéene nag doo ci delluwaat mukk bu dee xàqi doomu aadama da caa aju nga delloo ko xàqam loolu mooy tuub mu tegal ko ci bul sàkk mukk lu lu njub lépp loo xam ne yaa ngi koy def jublu ci am njub mi wax ci moom wax ibul quddus nee na bàmmeel li fay jariñ mooy njub dara du fa jariñ lu dul njub mu ne ko nanga doon koo xam ne dangay ngay nëbb sa bopp di muur sa yaram boobu jigéen ñi lay wax la jigéen dafa war a doon koo xam ne day muur yaramam islaam dana ko muural say cër bu ko feeñal jigéen taaram borom gërëm borom gërëm rek moo ko mën a moo ko sañ a gis waaye jigéen ñi léegi tey rawatina boo xoolee téléphone yi istat yi boo ko xoolee boo xoolee Facebook bi boo xoolee WhatsApp bi da gis jigéen joo xam ne day jël photoom photoom boo xam ne mboolem awraam mi ngi feeñ ci biti mu def ko istati ñépp di ko gis borom këram ak ku borom këram da ko gis loolu dafa xaraam jigéen wuta photo photo boo xam ne awraam yépp day feeñ ci biti mu dugal ko téléphone ci téléphone bi moo xam istati la ko def wala Facebook la ko def wala euh, profil WhatsApp la ko def ku sa borom kër di la xool képp ku koy xool di ci bànneexu mi ngi ci am bàkkaar waaye moom mi dugal foto bi moo ci ëpp lay bàkkaar kon jigéen ñi nañ bàyyi xel loolu mu ne ko nanga nga suufeel sa kàddu suufeleel sa kàddu loolu day amee maanaam bul doon nit koo xam ne da ngay gëdd nit wala di ko toroxal wala di ko wàññi boo ko defee de yàlla dana la sant mu tegal ko ci bul doon koo xam ne dangay ngay xool lu xaram fii ak yaa ngi dund la tanzuri ma dumti xayatan ila gayri alladi taxmiluhu qad jala lépp lu yàlla xaraamal li fi li fekk yaa ngi dund bu ko xool xool lu xaraam nag fi ñu toll dafa yomb rawatin nag téléphone yi yombal na ko lool boo dugal ci téléphone yi daal daanaka lu xaram rek ngay gis xanaa nga ragal yàlla nga ragal yàlla waaye nag ku ñeme yàlla moom lu ko neex mën na koo xool rawatina boo génnee ci mbedd mi lu bon rek ngay gis jigéen yi solutun lu baax wala sax ku ci sol lu jot yaa ngi sol lu yaraax loo xam ne boo jàkkaarloo moom yaa ngi selli ci biir loolu lépp dafa xaram am na ku doon wax ne jigéen muura muuraay soxna si yonent bi alayhi rek lañ ko lañ ko sant waaye jigéen ñi bokkuñu ci soxna si yonent bi alayhi rek lañ ko sant kooku danga koy wax dangaa juum yàlla moo wax ne yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatik wa nisaa'il mu'miniin yow yonent bi waxal say soxna ak say doomu jigéen ak soxna si jullit ñi ñuy muuru kon ñépp la war képp koo xam ne jigéen la muuraay war na ko ni julli doonee farata koor doone farata noonu muuraay doone farata kon li fekk yaa ngi dund bul xool loo xam ne dafa xaramu mu ne ko bàyyil jëw bàyyil réeréelu jëw mooy ngay tudd nit fu mu nekkut loo xam ne bu ko déggoon musiba mën naa am biñ laajee yonent ba alayhi salaatu waaw bu dee li muy wax ci moom am na nag mu ne ko bu dee li muy wax ci moom am na jëw na ko waaye fekkee li muy wax amut jëw na ba noppi boole na wax lu amut borom bi tabaaraka wa day wax ne ndax kenn bëgg na ci yéen fekk mbokkam moo xam ne dafa faatu mu koy daggate di ko lekk ndax kenn bëgg na loolu ci yéen déedéet bëgg lañ ko mu teg ci wattaqullah inna allaha tawaabu rahim bu rëy rëylu rëy rëylu mooy koo xam ne day xeeb nit ñi te bëggut ko koy wax dëkk loolu yonent bi alayhi salaam wax koo xam ne bëggut ku ko wax dëgg bu juumee ci xam-xam boo ko jubbantee mu mer boo ko boo ko jubbantee ci masala mu mer bëggut ku koy wax dëgg ak lu mën di def bu juumee moom bëggut daal ku koy wax dëgg moom ak jàppale na ne kum gis moo la gën kum gis moo la gën mu tegal ko ci saxal ci noppi ak muñ saxal ci noppi ci lépp loo xam ne amul njariñ mu ne ko watanikul wax lu amut ak ngistal loo jëf bëgg nit ñi gis ko naw sa bopp ak loo loo jëf bëgg nit ñi dégg ko ak bañ ab jullit yépp ay melokaan la loo xam boo xam ne jullit bi war na koo daw mu tegal ko ci saxalal ci dëggu dëggu ci say wax dëggu ci say jëf ànd ak sellal sellal dana ko wax ci kanam ak laabire sa mbokkum jullit lépp loo xam ne gis nga ne lu baax la laabire ko bu nekkee ci lu bon tere ko ko waaye nag mu ñëw ci loo xam ne jigéen ñi rek ñoo ko moom spécial mooy nee na bul sàkku topp yàlla mukk ci lu dul topp sa borom kër jigéen joo xam ne du topp ndigalal borom këram kooku bu mu sonal ci topp yàlla waaye nag mu tegal ko ci lu am solo mooy na doon borom kër goo xam ne kat dafa ragal yàlla borom kër goo xam ne da lay digal luy lu da tere loo xam ne yàlla da la koo digal borom kër goo xam ne day digal soxnaam xeesal wala yu mel noonu sañu ko cee topp yonent bi alayhi salaam day wax ne bul topp mbindeef ci mooy yàlla borom kër goo xam ne day diggal soxnaam ci loo xam ne yàlla tere na ko sañu koo topp léeg-léeg nag jigéen ñi dañuy faral di juum ci loolu ñoom jàpp na ne lu seen borom kër wax rek dañ caa war a ànd ak moom déedéet moo tax sëriñ bi wax ko ci wala taruumi taat allahi bila taati zawjiki ak taqiyi la wax borom kër goo xam ne dafa ragal yàlla li mu lay digal moom la la yàlla digal li mu lay tere moom la yàlla tere kooku ngay topp ay ndigalam bàyyi ay tereem mu ne ko nag jigéen ñi seen i jihaad mu ngi ci topp seen borom kër góor goo soxna soo xam ne topput borom këram kooku yàlla du ko gërëm waaye ku topp borom këram am ngërëmam kooku borom tabaaraka wa taala dana ko gërëm mu ne ko nag wal taalami bi anna kulla ma sadar li xayri wajhi lil jalaali fa hadar lépp loo xam ne yaa koy def moo xam julli la moo xam woor la moo xam jëf ju baax ñu mën di doon te yàlla taxul jàppal na neen la caaxaan la yàlla du ko nangu ndax bokk na ci charte jëf yàlla nangu ko na sell la yàlla rekk tax nga koy def mu tegal ko ci ne am na ñeent yoo xam ne rek ku bëgg mucc ci mbugulum yàlla faw nga bàyyi ko te mooy wax lu amut ak rëy ak nay ak ñaaw njort wax lu amut ak rëy ak nay ak ñaaw njort nay nag ay ay xeet yu bari la nay bu ñu tuddee yonent ba alayhi salaatu wasalaam doo ci moom ci nay la bokk nay ci dundal say njaboot nay ci boo amee ay gan teral ko nay ci sa xam-xam nay ci ñaanal sa mbokkum jullit yooyu yëpp ci xeetu nay la bokk ñaaw njort tamit koo gis lu bon rek ngay ñaaw ngay xalaat ci moom bu dee nit koo xam ne sax dafa siiw ci lu bon dafa siiw ci naan sàngara wala dafa siiw ci rey nit nga gis ko ñaaw ci moom njortu baax ko waaye koo xam ne xamoo ci moom dara nga gis ko ñaaw ci moom njortu baaxut kon ñeent yi ku bëgg mucc ci mbugalum yàlla na ko bàyyi wax lu amul ak rëy ak nay ak ñaaw njort lii nag da nga koo def mu doon ak yóbbal ci képp koo xam ne ñëwoon nga ci bis bi ndax kat yàlla mi wax ñi doon aji màkk dana woon wa tazawwadu na ngeen yóbbalu fa na xayra zaadi taqwa yóbbal yi gën ci yóbbal yi mooy ragal borom bi tabaraka wa taala kon nag yal yàlla may dégg ak topp ñi nga xam ne ñoo màggal si woon nag di jaamu yàlla def lu baax ñoo ngi leen di ñaanal yàlla yàlla nangul leen seen i jëf ñi nga xam ne ñoo ñëwoon ci màggal gi nag di def loo xam ne sëñ bi da koo tere ci dëkk bi ñoo ñoo ngi leen di wax ne dangeen ngeen a yàlla guerre ndax yàlla ci boppam moo wax ne koo xam ne noonu naag sama wëliyu damaa déclaré moom ak guerre te noonu nitu yàlla weesuwut mu woote ak woote nga ñëw ci dëkkam di def loo xam ne jaaduwul kooku danga koy wax ne ah bu delloo sa kër tuubal walla sam xel bu mu dal mukk ndax yàlla nga amal rek affaire allahuma inna nasaluka aljannata wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amal ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اجعل جمع اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زكيا وعلما نافعا رافعا وإيمانا راسخا ثابتا ويقينا صادقا خالصا ورزقا حلالا طيبا واسعا